Assalamualaikum mbokk jullit yi asalaamaaleykum mbokk talibé yi su ngeen gisé jotaay bi ngeen xamné ñu ngi toog ak ay kilifa yu mag bayiko ba Dagana nek ci waccay nak li nga xamanteni moy gamu annuel bu Dagana nek le 4 juin bi ñu jëm ci téwaayu mboolem njabotu Cheikh Seydil Hadji malik ak ci ndigalu khalif general de tidiane waye ka fay wutu njabot gi nak muy Serigne abib si wara a ki nga xamanteni moy ak Serigne Sidi Mbaye kon nak bala ñuy sori ñu bàyyi kàddu gi ak al oustaz Habib Fall aouzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bok Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara ñu ngi jiital ci nuyu bi khalifa Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour yàlla na fi yag lol te ànd ak wér ci barke yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ak njabotu mamam Cheikh Seydil Hadji malik yëpp di nuyu suñu wayjur wu tedd wa sëñ muntaha bashiru momit nga xamni ni tabaarakallahu moom moo toogee toogaay suñu mam ji Cheikhul khadim radiyallahu taala anhu yàlla yàlla guddal fanam te mooy ko wér. di nuyu bokk Sénégal ma sha allah comme ning ko waxe rek mbuub tabaarakallahu ñu ngi ci waajtaay wu way tay wu mag woo xamni li ñuy xewle moy gamu annuel de Dagana. Dagana nak suñ koy wax ci bir Sénégal dëkk la bo xamni ma sha allah barena ay nitu yàlla yu fa jaar. bare na it ay nitu yàlla yoo xam ne foofu la ñuy soqi ko fa tabarakallahu di ay waliyu di ay boroomi xam-xam di ay jaamukati yàlla macha allah xew-xew boobu nag di am la 4 juin comme ni nga ko waxee ci teewaayu Serigne Habib Sy Mansour moom mi nga xam ni moom la ñu bàyyam dénkoon moom la ñu bàyyam joxoon mu ànd ko ak nun fa tabarakallahu ak waykat yu mag yi ñu ngi ci woo bokki Sénégal yëpp nag président de la république ak mboolem autorité yi nga xam ni surtout ñoo dëkk Dagana ak ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci diaspora beeg ñëpp macha allah ñu ngi leen di wow ci guddi gu tedd gu mag googu nga xam ne ay mag ñu baax ñoo ko sosoon ngir yàlla ak feddali seenu ku wëllëre waaye feddali seenu bokk macha allah bàyyi xel seen dëkk bi nga xam ni fa la ñu jógee tabarakallahu ñëw fii ci ndakaaru bañ seen d'origine réer bañ seen mbokk réer moo tax ñu sosoon bis boobu muy bésu gàmmu Dagana di retrouvaille boo xam ni ñëpp foo xam ni doomu daa doomaanu Dagana yëpp fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna fa tabarakallahu bis boobu ñoom ñëpp danañu daje saa fonte sargalante tabarakallahu loolu mooy li nga xam ne moo sababoon gàmmu dagana ci lañ jëm yàlla ci yàlla yóbboog jàmm macha allah ñu fekkee ko te tal ko ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi woo àdduna bi yëpp nag bàyyi ñu kenn macha allah bàyyi wuñu fenn wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jërëjëf Serigne Habib ci woote bu yaatu boobu nga xam ne woote nga ko kon du ñu def rek lu dul bàyyi kàddu gi ak al imam El Hadji Jibril Diack السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم mbokki dagana mbokki waalo ñu ngi woo ñëpp si gàmmu gi comme ni ko Alxaaj Habib waxee du ma si delluwaat waaye li waral gàmmu gi rek la ñuy joxe tuuti muy ay mag ñoo xam ni dañu dëkke woon ndakaaru bëgg di delluwaat si seen cosaan ñoo tàmbali woon gàmmu gi dinañ si tudd rek suñu jur bu ñu wax alxaaji Fili Bousso ak suñu papa Amadou Cissé Dagana ku tudd ñaar ñooñu yëpp tudd ñaar rek tudd nga waa Dagana yëpp ak Adja Maguette Diack ñoom ak ñeneen yi jigéen yoo xam ne ñoo àndoon ak ñoom ñu ñoo sosoon daayira bi ngir di mën a delluwaat si seen cosaan di naanewaat si seen naanuwaay di mën ziyaara si seen armeel di mën a gis seen i mbokk mhm. xiir si seen ay doom loolu lañu ñu ba ay mag yor ko nekkoon group six doon ay mag jàppale woon ñu muy góor gi Ablaye Fall ñoom Djibril Bousso Malick Guèye Abdou Salam Ndiaye Ousmane Cissé ak góor gi Malick Fall ñooñu ñoonu jàppale ñun bu ñu egsi fii ñu egsi et ak waa Dagana yëpp jàpp si mhm. politiciens yi ndax ñoo ko bokk ren nag gàmmu gi dafa am beneen particularité mooy waalo barewul ñu gàmmu kon nag ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw si gàmmu gi mhm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf euh, yaa imaam ci kaddu yu rafet yooyu nga yëkkati joxe li nga xamante ni mooy sababu nuzulu gàmmu gi te mooy cosaan bi ak ña nga xamante ni ñoom ñoo ko taxawu bu njëkk dañuy bàyyi ak président moom tam mu ñëw ci wooteem بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون رأينا مسلمين على المسلمين كاملين معلمين معنا الزمن اللي هو طاحت المصيبة على تواون اللي طب اللي مسمي على الحاج عبد العزيزي اللي فناو فيه ذوك صبيان اللي ذوكم اللهم ارحمه وأذي عنا بجاه رسول الله رأينا نحن من روسنا آه، الليلة اللي كانت تعدل لها ذلك عامين ما وعدلت اللي تعدل في ولا ولات خالق نهار كبير أكبر من ذي القراية اللي تعدل في دقانا راينا منادين للمسلمين كاملين يجوها جميعا ذكورا ونساء إيه، باندرابي دندرابي ونون نود دو إيه، جم جمعوك جم صلى الله عليه وسلم جمعوك جم هلفا بفوف من نود فف yo ngare eɗa andi hitande ɗiɗi o ala o waɗaka e joni noon on waɗa inchallahu le 4 juin to to e, jama mawɗo o e min noddi yimɓe fof yoɓe ar toon yo allah waɗan jamma yo allah waɗan jamma yo allah waɗan ndungu jamma bi cheikh rasulullahi sallallahu alih wa sallam e, jërëjëf président boo déggee wooteem nga xamante ni moom mi ngi woo mbokk Mauritanie yi woo suñu mbokk couleur yi nga xamanteni ni boo walu di nga wax ñooñu ñëpp ndax fofu ñëpp jaxaso nek ben benn te ñëpp bok ci guddigi kon ñu bayyi kaddu ki nga xamanteni ni suñu di docteur dudjo. assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki senegal ma ngi nuyu mbokk yëpp di nuyu mbokk walu eh, di nuyu wa mbokk Dagana wa ñun nag di wax ci walu organisation bi ak nuñ ko ren nag gàmmu gi ay euh, innovation yu ci am ak ay changement mhm. yo xani amna ay association ay jeunes yu ñew japp ci japp lañu ci organisation gàmmu Dagana fekk ci ñun ñi nga xamni ño nek ci daire yi ñu japp lañu li nak dañuy wo Dagana yëpp ñu ñew japp lañu ci ndax liggéey bu yaatu la boo xam dañ ko jëlé ci ay mag bëgg ñu continuer ko ba ñoom ñu suñu ay doom jëlaat ko si ñun organisation bi nak ren changement yu ci am moy dañu commencer le 28 ben set setal bu ñu def Dagana depuis samedi bi passé euh, ba tay ji sax gaa ci continue set quartier yëpp ku nekk yaa ngee jéem a pour dalal gan le 28 le euh, jeudi 2 mu am benn panel bu organiser pour Euh, euh, xam ci origine u gàmmu Dagana ak historique bi pour ñu ngi koy wax ci ñu ngi koy defee nag Dagana ci salle euh, boo xam ne mairie bi foofu lañ koy defee di si woo mbokk yëpp waa Dagana pour ñu ñëw 16h fekkee panel bi sañ Mbaye Diack moo koy anime ak Abiboulaye Diop ñu koy wax Filou ñoom ñoom mooy modérateur bi bu ñu jogee si loolu ñun fii jeudi lañ fi war a jóge aussi délégation yi war a dem ñun dañ fi war a quitter jeudi à 20h. dafa am kaar yoo xam ne dañuy déparé ñaari tali kër ab feu Ablaye Fall am na Pikine euh, marché Zeng kër Xari Mbodj euh, euh, Géejuwaay am na kaar bu fay jógee kër Seyni Thioub donc ñoo ñoo fiy jógee bu ñu fi jógee nag dañuy jaari Tiwaawan dañuy dem Tiwaawan parce que sëriñ dañuy dem foofu sëriñ bi ñaan ñu ziyaare ñu ñaan ñu yeewi ñu ñu mën a dem de Richard tool Richard Toll nag aussi moom it si ba état bu gàmm yi la bokk mooy ndékki la ndekki foofu lañ koy defee bu ñu fa àggee fajar ji fa la ñuy nekk ñu neen di ko def nii seen ay waajur ñoo ko doon def di ko def ak mag ñi ñu nekk nag ay nit ñoo xam ni xër ci lool buñ ko commencé di ko def jël kaak léegi mbooloom ay kaar mën nañ jël lu ëpp cent kaar indi mais ñëpp daañ leen jox ndekki donc ñoo ñooñoo tam waa euh, waalo yëpp xam ni Richard ñoo ñooñu waa njee mooy waa kër Mbay Faama Jéey ak kër Mbana Diop kër Mbana Diop nag ku fa nekk actuellement mooy Lissong Mbodj mais kër Maam Mbay Faama nag waa kër ñëpp mobilisé ñoom dañ siy jàpp bu baax bu ñu fa jógee nag à 11h la bëgg a dem def délégation convoi bu jëm Dagana convoi bi nag bu ñu ko demee bu ñu arriver Dagana si jumaa ji la ñuy dem euh, imam ratif moo ñuy dalal dalal gan yi ñaanal leen ñu préparer jumaa ji bu ñu paree jumaa ji amaat na aussi xadara populaire bu ñuy organiser boo xam ni ren dañu décentraliser xadara bi yóbbu ko jàmm gën jàmm gën nag boo koy dégg mooy juma deuxième secteur la boo xam ne mu ngi nekk ci wetu château d'eau bi ni ñu koy wax juma xàlli Diop foofu la ñuy defee xadara bi ci teewaay kilifa yi am Amza ak euh, sëñ Habib ak ñu fa war ñëw ñëpp daañ ñëw teew ci xadara bi bu ñu fa jógee nag su samedi bi am nañu aussi programme samedi bi à 16h am na ouverture daara sëñ Mansour boo xam ni euh, Cheikh Char moo ko tabax pour sëñ bi moo ko santoon mu tabax ko mu ngi ko tabax nag institut la boo xam ni vraiment njëriñu waalo la njëriñu dagana la pour xale yi tout tànk yeeg mag ñeeg ñëpp di fa jàng alxuraan euh, internat la 16h ba 16h 17h te la ñuy jóge foofu nag dem cérémonie officielle bi cérémonie officielle bi nag mi ngi commencé 17h30 ba 19h foofu lañ koy yamale pour mën a guddi gi ñu préparer gàmm cérémonie officielle bi nag autorité yi préfet moo koy préparer ak le maire de Dagana mooy Omar guddi gi nag aussi mooy vingt et une lay commencé mooy euh, way sam euh, Sidi Mbaye la ak Sam Mboup ku koy taxawee mooy Serigne Mansour Mbodj ci teewaay sëñ Habib ak Abdou Aziz Wele moo xam moo fa nekkal Dagana papaam moo nekkoon foofu di Serigne Waalo donc daal ñu ngi woote ñëpp di xam programme bi daal di si woo jeunesse Dagana ren bëgg nañu képp ku mën ñëw jàppale ñu parce que dañu innovation yu jël yëpp pour da waalo yëpp xam ni Dagana dañu unir pour def suñu dëkk dekk bi nak ñu ngi ñaan kep ku si mën japp ñu ñew jàppale ñu ci gamu gi parce que euh, dekk bi dekk euh diine la walol ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jër leen jëf jëf sëriñ Doudou kon nak mbokk yi woote baangi nonu nek le 4 juin ci Dagana and ak ki nga xamanteni moy sëriñ Habib ibnu Mansour borom daara ji war fa téwal khalifa bi ak ay rakkam war fa teewal tamit ay magam yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu dem fa fekk fa jàmm doxal la mag ñu daan doxal ci jàmm delluwaat ci kër yi ci jàmm mu jur jàmm ci réew mi jur jàmm ci àdduna bi jur jàmm ci fépp foo xamante ni nit ma nga fa nekk di fa dund ci barke yonent bi nga xamante ni moom la ñu wooteel yàlla ñu ko yàlla defal lii moo doon kàddu yi jërë ngeen jëf